أتى بالمماك الأوتان باغنا سلي من الشيطان jërë jëf mbokk yi suñu mbokk yi jàkkaarloo ñu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi amati mbégte kontante di ñaanal xalifa général kulu murid Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool ci ànd wér ñaanal mboolem njaboot ak seexul xadim gépp mbokk yi nag tey ñoo ngi ci bis bi nga xamante ni moom la ñuy fàttaliku gisee seexul xadim xadim suul ba ak Seex Ibrahima borom Daaru Moxti gannaaw nag ba mu demee ci tukkeem bu boobee ñu koy fàttaliku. di ñaanal Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ni kër maam Thierno Ibrahim gannaaw nag bi ndigal li bàyyi ko ci xalif général kulu murit Cheikh mu Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér jaar ci Serigne Bassirou Anta Niang xalifa borom daarul moxti waaye itam wàcc ki nga xamante ni mooy porte parole yoon wi porte parole borom daaru tey di Serigne Bassirou Mbackeem Serigne Abdoul Khoudous ñi ñaan yàlla doole ko tawfeex ca kàttanal ko ak mboolem comité organisation bi nga xamante ni ñooy saytu tey màggal gi mbokk yi nag ñoo ngi fii nga xamante ni fi la ñu denc ku baax ki nga xamante ni mooy maam Thierno Birahim borom daaru borom daaru muy fii ñuy wax bayteeg maqaama ñoo fi tey jii nag àndanteeg yéen ci siyaar yi nga xamante ni mbokki taalibe yi ñu ngi koy def bàyyi ko ci ay yi fasantikoo yi nga xamante ni ñi ci biir réew mi ak bitim réew ñëw na ngir siyaare si maam Thierno a njabootam bi nga xam moo fi tudd ñoo fi tëdd waaye taw taam ba nga xam ni moo di Serigne Modou Awa Balla ak mboolem njaboot gi nga xamante ni ñoo ci aju yëpp jaar ci sëñ Abdul Xuddus ba ci nga xamante ne euh, mooy euh, Baye Cheikh Khady ak mboolem njaboot gépp nga xamante ni ñu ngi tëdd fii tey kon ag yaakaar naa ni leen ànd ak yéen ay reportage ay témoignages waaye tamit lépp jëm ci li nga xamante ni mooy bésu tey bii nga xamante ni moom la ñuy fàttaliku giseb Serigne Touba Khadim Rasoul ba ak ki nga xamante ni mooy maam Thierno ñu ànd koog seen site internet bi nga xamante ni moo di Istikhama TV ànd ak seen télévision ITV. waaye tam 24 actu yëpp nag ñu fas yéene àndante ak yéen allah ci kanam tuuti ay seere ak i témoignage ci borom Daaru Muxti ak i reportage ci kër yi nga xamante ni mooy kër njaboot ak borom Daaru gi ba ci kanam incha allah badatu baana li man loo salaam أن امتداء المنتقى فلا وآيات أمدا وكتب من أوى إليه سوء البرايا والزمن نبينا الماء ما كلفا حنا كما قبل منا متزا محمد صلى الله عليه وسلم تسر مني دواما قدم أحمدنا المختار كفى الضررا لغير ناوي أبدا وقررا أبقى سلام ربنا المقدم حل رسول والنبي مقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا رسم رب العالمين سرمدا على جل العالمين أعمدا يمن ابن عبد الله غاد البركات لسكنات الأزياء والأركات وذاب الخادم لورى الصدور تنوير موجن السموس والبدور ينقاد nag ñu wëyeen ànd ak yéen ginnaaw bi nga xamante ni gis ngeen image yu am solo yi nga xam ne ci lañ génn bayti ak maqaama fi nga xamante ni fi la Cheikh Ibrahim borom daara moo ti nekk di dallu ak njabootam googule moo tax nag ñëw nañ fii nga xamante ni mooy xalifaam tey di sëriñ Bassirou Anta Niang ñuy ñaan yàlla guddal fanam yokku wéram bi ñëwee itam fekk nañ fi tey kii nga xamante ni moo di doomam di Serigne Modou Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang Serigne bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la pare ñu bëggoon rek nga dikkal ci bésu bi solo ak taxawaay bi nga xamante ne Serigne Bassirou am na ko ci wàccaay wi ànd ko ak mbooleem daayira yi rawatina comité organisation màggal gi euh, la yan euh, kàddu nga ñu dénk ci bésu tay bi aousu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaan tamkin waa mbokk yi ni ngeen ko xamee tey bis bi bis bu am solo la ndax tey mooy bis fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan ah, fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan nag dafay bis bu am solo ci Daaru Muxti ndax mooy bis bi nga xam ne ci la maam Thierno Birahim ak Serigne Touba daje woon bi nga xam ne Serigne bi jógee na ci géej gi bàyyi fi maam Thierno Birahim bi mu ñëwee mu woolu ko ndar ñu daje mu sant ko gërëm ko loolu mooy bis si saxbaan bis bi nag mu dajeek ay ay xéwal yu bare bare ndax dafa rëy ci lislaam bis la boo xam ne yàlla sunu borom ci boppam moom waxal boppam ne bis bi da ci am ay dogal yu bari yoo xam ne sunu borom dana ko ci def kon loolu yaakaar naa boobu bis bis am na solo waaye fii tey ñi ngi ci kër sëriñ Bassirou Anta Niang mi nga xam ne tey moom la yàlla dogal mu nekk xalifa maam Thierno Birahim bis bi nag waajal nañ ko niñ ko waxee ndax bi yàlla dogalee ñu ñu ñu di ko waajal dañoo yàlla sunu borom dafa naroon na nekk mu naroon na tombe ak wote yi waaye nag ci kàttanu yàlla ak ci baaxu sëriñ bi gis ngeen bis bi ni mu dellusiwaat ci fukki fan ak juróom moo waral tey jii kon fii ci kër sëñ Bassirou Anta Diang gis ngeen wàccaay bi nañ ko defee comité d' bi nga xam ne ñoo yore màggal gi muy sëñ Bassirou Abdou Khoudoss ak ñi ko seqal ñëpp waajal nañu ko war a waajale ba tey ba tey jii ñu bis bi kon fii ci kër sëriñ bi tey gis ngeen mbooloo mi ni mu bare daayira yi ak mbokk yi ak kilifa yi ñëpp gis ngeen ci yor yor ba léegi ñu ngi ñëw di siyaare sëriñ bi loolu nag yaakaar naa mooy war a ne bis bi kon a waxee am ne maam Cerno Birahim ak Sëriñ Tuubaa dañoo daje ko boo demee ca lettre ba mi ngi koy naan ko mata taqwa aynu ko ala sil huruf fatay xan bi anna katibaha radin an karidan la suxut bax dew abadan wa annahu talibun min allahi tabaraka wa taala lakum ma yaxedu fii jami am salik fatib nafsan waxar raxañ nan walaata so ko fi kaw ni xansaat mi rabak iléegi bi waa satati wala wala mën a xulaki loolu mooy teg si lettre bi lettre bi Serigne na nga xam ne ki ko bind gërëm na la ngërëm loo xam ne mer du ci toppati na xam ne ngërëm loolu it sa borom la jógee jaar ci yonent bi salaatu salaam ñëw ci man ñëw ci yow yaa ngi mboolem ko àndal daan na ko bu ëllëgee say morom yëpp dañ la ci ñee daanaka kon mën nañu wax ne xéwal gi tàmbali naa feeñ fii ndax tey yaakaar naa ku ñëw ci dëkk bi tey gis nga mbooloo mi ni mu toll tey gis nga kilifa yi mboolem yëpp ñu ngi ñëw di barkeelu ci bis bi kon bis bi daal am solo boo xam ne bii bis la boo xam ne bii mën nañu wax ne moo ko moom ndax ni ma ko wax léegi bisu ni mag ci lislaam ndax bari na loo xam ne sunu borom da koy dogal ci bis bi tey daal gis nga mbooloo mi ni mu mel fii ci kër xalifa bi sëriñ Bassirou Anta ñu koy ñaanal mu yàgg fi siyaar yi bi ñu xëyee ba léegi ñu ngi ci wàcce nañ ay kaamil alxuraan def nañ salaatu ala nabi ñu ngi jàng xasida noonu lañ ko fas yéene yendoo incha allah fanaane ko ba suba ci ëllëg sa rek bu door a dem ci cérémonie officielle loolu daal moom waaw taxawaay sëriñ Basiru moom li ñu ko waxee mooy lu am solo ndax moom bi mu toogee dafa wax ne yàlla sunu borom moo ko fi teg waaye bi mu ko fi tegee itam ci kàttanu sëriñ bi dafa wax ne dafa mbooloo mépp nekk benn mu wax ne lépp lu ma nit di defal te ñi ma seqal maam Thierno Birahim amuñu ko man day mel ne amu amu ma ko keroog bi nga xam ne ñu ngi def CRD bi ci gouverneur teew fi autorité yi nga xam ne ñoo yor wàllu ñoo yor wàllu kii bi administration bi yëpp teew fi daf leen mën ne maa ngi leen di ñaan lépp loo xam ne lu ngeen may def ko mbooloo ndax lépp lu ngeen may defal man personnel rek te mbooloo mi amu rek day mel ne man amu ma ko kon loolu day wan ne mbooloo mi yittaloo ko moom it yàlla defal na ko tawfeex ndax bi mu toog it ñoom ñëpp boole nañ seen seen seen bopp jox ko boppam ba gis ngeen jumaa ji nga xam ne moom la woote woon mboolem ku aj ji uh, waa kër Muti mboolem ay rakkam mboolem ay doomam mboolem seexi borom Daaru Muti yëpp dañoo takku ànd moom ci liggéey ba gis ngeen jumaa ji fi mu toll nii ci décoration yi daanaka li li ñu tabax lépp bari jeex na àgg na ci wàllu décoration yi moo ci bëgg a des bi mu toogee mboolem ku yaakaar maam Thierno Birahim mboolem kuy seex mboolem kuy ñëw nañ topp ci ginnaaw fas yéene ko jàpp ci liggéey bi moom daal ab taxawaay ci njaboot gi nañ jàpp ne taxawaay bu réere la ndax njaboot gi moo leen wuuf moom la fi yàlla teg tey mu jiite njaboot gi Cheikh Ibrahima Fati kon tey ñëpp ñu ngi fi wuy si ko mu fas yéene euh, jiite njaboot gi fas ne taxawal li nga xam ne moom la bëgg a taxawal lépp loolu daal yaakaar naa ne mooy li nga xam ne moo moo ci li gën a feeñ waaw